Ik ga daar zeker Dan gaan we allemaal wachten. Ga je dan maar. Wat taler ça fait léegi déjà trois mois pratiquement ñu may bloqué rek dañ may bloqué te man waxuma dafa ma dara ata je vais chercher un coin là où je peux mettre ma mu mun a teg sama téléphone bi man daal gars yi dañu jaaxal quoi bu ma taalee rek ñu ñu bloqué ma voilà bu ma taalee rek ñu bloqué sama mënu ma partage il se fatigue, hein, parce que Il se fatigue. Ils ne pourront pas me déstabiliser. Hein. Dans des J'ai de la bouteille, hein. <laughs> J'ai de la bouteille. Trois mois y passe là. man xaw ma lu ma def bañ may bloqué quoi je ne sais pas buñ bloqué ba mu jeex rek ma taalaat commencé kii rek bu deñee rek ma mun a partage rek après hop ñu bloqué at na ah dañ ko dañ si génn bàyyi dañ bàyyi benn yoon dañ bàyyi like nañ bay ji parce que man bon mënoo luñ ma dara dañuy sonal seen bopp rek dañuy sonal seen bopp waaye ma ñoo waxtaan ak si benn affaire boo xam ne bon yaakaaroon naa ne xam ngeen ko non mais c'est extraordinaire comment ils nous ont tués quoi c'est extraordinaire am na yoo xam ne da nga koy gis nga foog ne xam nañ ko. te gars yi xamuñu xamuñu ko fan la domination bi nekk fi domination bi nekk tànk tànk tànk tànk jéggiwuñ loolu dara du changer suñu réew dara du fi changer na leen leer ma dem ba day dem te fi ma sàmba yoro ñëw Penda Njaay ñëw Xalifaal ñëw mais le problème demeure Vous ngeen depuis notre existence la même chose que nous vivre mais nous mënul nekk époque bu nekk c'est comme boo gisee esclavage boo nekk gisee esclavage nga avons l'immigration c'est la même chose mais c'est la même chose am na nit ñi ñoo xam ne dañuy au Allemagne wala ñu Paris wala des trucs comme ça

Tu intégrer. intégré mais toi, tu suis nangu une intégration Ligue pire nous jéem assimiler mais c'est ridicule parce que déjà si tu regardes à l'époque année 70, immigrés, rek immigré yi fi Ils ñu leen di wax immigré italien portugais espagnol

Non, mais, mais, mais c'est grave. li dal nation nègre li ñu dal dafa métti mais bul bul dem foofu dafay sori comme son papa Cheikh Anta ni mu ko daan waxee ndeysaan boo jëlee waxtaan bi foofu day sori jéemal wàcc si loo xam ne lii boo tàllalee sa loxo jot ko muy lan

Le problème économique amee sécheresse am ñi ñuy exploité bañ ñu dee en masse parce que du un intérêt te ñoom ñu ne bu ñu bàyyee suñu gestion seen vallée yi ñu yore à l'époque Senghor Ophé, boigny Bokosa, nous nga ñu mel noonu du sotti nous créer yenen dirigeant ay organisation une tuddee ONG organ sax organisation non gouvernementale ñooñu ma ngi coup à l'époque bon comme du ngén di sét du ngén di gëstu du ngén ko xam ñu ngi wone woon ministre français du temps du parti socialiste Bernard Kouchner Bernard de distribuer ay saaku ONG yooyu dañ daan dugg partout laaw ba nga xam ne population bi dafa soxla remède de cheval ñu fay def aspirine pour tenir leen pour maintenir leen en vie gas ay teen tabax ay dispensaire indi ay lekk di leen ko jox di leen ko jox pour nous mais nous, finissons ñu août, parce que déjà nous, à l'époque on fréquentait beaucoup les foyers beaucoup de travailleurs immigrés yi jóge woon euh, saraxule yeeg euh, tukulóor yeeg yooyu ñu jóge euh, plus aussi dans le nord Nous, dañ cotisé cotiser foyers. Mais yi ba cotisé. dañ koy def dañ daan cotiser ay dispensaire di tabax ay école di yónnee lekk yónnee lekk bi sax mën nañ ko parce que père de famille lañ té buñ nekkoon Sénégal war nañ joxe lekk mais hôpitaux yi ak école yi ak yoy ñu doon défar ay ambulance dañ leen daan wax man dama leen daan wax buñ ko def buñ mën lu tax duñ ko def may leen mais yeen yéen a ngi wax ne ñi ñuy gouverner dañuy lekk suñ xaalis ay milliardaire lañ lu tax ñu nekk milliardaire suñ alal bi ñu war a tabaxee hôpitaux yi école yi créer ci ay emploi moom la ñuy lekk ñun ñuy jóg ñoom li ñu waroon a def ñu li ñuy for ñu koy def à leur place ñu ne ma bon na ñuy def ma ne leen tere leen ñu jël suñ alal comment ma ne leen au lieu li ñuy dajale

nañ ko def am organisation boo xam ne mën nañ ko soutenir ñoo leen di ëpp doole téeméeri yoon dóor leen wàcce leen nangu suñ xaalis mais teewul mais dangeen di xool lutte de libération nationale yi am yépp ci àddina bi ma leen di njëkk ji euh, wax italiens yi ak Mussolini bo déggee ñu daan wax affaire mafia yoy ñom Al Capone yooyu te nga Al Capone italiens yi dañ génn seen réew dem émigré ji partout mais ñom ñoo xeex de l'extérieur Mussolini mu daanu Les espagnols, les Franco sonolais ils ont fait la même chose bi la diaspora juive Hollande, Hollande dans le monde Nous, c'est un un 1948 le judo. 48 48 bu fekkee ne deuxième guerre mondiale 45 la jeex ñaata at la ci gars yi teg pour rebondir ak liñ ci biir yëpp hmm. nga jóge ci ñooñu nga xool le peuple palestinien mais le peuple sénégalais. tok di gérer domination naka man foko qu'on ne les soi-disant politiques, activistes, xawma la dara sax nga sen bop mais ñoom ñooy ñëw nga dinañ comprendre di gérer boobu affaire légui lu yëngu Sénégal di injustice au lieu que nous cherchons, nous que gérer. Nous que gérer. Dak Ousmane Sonkobi, on a commencé Simon. Nous que gérer. Dak Nenko, au lieu que nous trouvions de l'injustice, nous cherchons pour nous réparer. Nous devons faire des choses. dégg nga gaa yi ku ci feebar wala dara daal si ma joxe suma kaayu doom bi Abdou Karim Xurum Xaar feebar na feebar na ñu cotiser yóbbu ko Allemagne yaa ngi dégg benn camarade di xeexal peuple bi

ñu ket jox ko xeexuñ de dañu bàyyi ñële continuer def leen neex kii njaay ki yore woon sud bote bi taxaw seede nekk nit ñu def ko pression ba fi mu doon liggéeyee yàqu ñu ne ket waaye ma ne gaañ du ngeen dara da ngeen di gunge di yombalal ñi leen dominer seen àddina ñoom léegi lu ñu def si injustice duñ ci ragal dara parce que ñun dinañ jóg tu vois ak suñu légèreté Mais dingen die def duur, den kora Je hoort nu loer ne def, n'est pas juste, c'est de l'injustice. Vous ko au lieu que yo, nga song ko Voilà, ça s'est passé l'élection il est passé L'élection est passée. Nous avons affaire au parrainage Nous le parrainage parrainage mais parrainage bi biñ koy problème fichier problème carte électorale. Nous, nu élection base la base même cas de figure que Mo, am puissance 10, puissance 10 parce que les 2 millions de cartes yi nga xamné ne réglé wuñ ko won xamuñ fu mu jaar xalé yi wara voter légui yi am 18 ans bindu nañ donc buñ on a nek à l'époque 5 millions d'inscrits légui jege nañ 8 millions d'inscrits mais kenn mënul wax à la carte yi avons atteint un parrainage la même chose nous Jarat, moo tax ñu avons gouverné opposition le système capitaliste de mel ni la république française Nous avons tegalee ñaari courant soi-disant gauche droite nous avons ñëpp au niveau de leur politique extérieure France les les liggéeyal donc léegi boo xoolee affaire bi li ci le monde capitaliste depuis après les chefs de canton et tout fois créer li ñuy wax ay parti politique mais di leen une affaire parce que les partis d'opposition ne s'opposent pas y a pas d'opposition dañuy gunge bu un tour jotee ñu jël dama soupçonné sax quand ce que les mauvaises langues disent parti nga xamné ne qualifié nañ waxuma le parti euh, cabine téléphonique sen dirigeants dirigeant yëpp dañuy joxe jot chèque tous les mois ils font semblant d'être opposants lu la koy won mais xoolal ni ñuy dunde kenn waxu la né amuñ sax métier parce que diplôme du métier am na xamné xam am nañ diplôme mais musuñ liggéey ñu leen di wax ay docteur wala ay maître wala ay truc liggéey ñu c'est pas des trucs de misérable là bo tax ñuy liggéey am na si ñoo xam ne sax mun nañ démissionner seen liggéey bi ñu yore mais dégg naa da ngay seet nga ne mais ñii liggéeyuñ mais nu ñuy dunde lu ñuy dunde gaay koy pàccoo opposition amut parce que ñu ngi toog tey ne pat kañ bërki conférence de presse soi-disant les activistes là. ñu ngi def remarque pour la première fois te gars yi arrêté l'hypocrisie yéen a gars yi añ di reer ay xarit ngeen bu leen ñu fontoo chaque manif bu ngeen def parti politik yi dul ñëw dañ leen di jox xaalis loolu ngeen di jëlee ay sonog yooyu ak leneen ak leneen ak leneen mais da ngeen toog peut-être ñi ko dénoncé ne parti politique yi ñun bu ñuy manifester bu ñu defee benn affaire comme affaire Omar Diagne bi du ngeen ñëw du ngeen ñëw <clears throat> ci seen conférence dañ ko wax mais du ñëw ñoy seen maître ñoo leen di dundal si suuf manif yëpp dañuy joxe xaalis ngeen def ci ay banderole trac lu yëkk yooyu yëpp du ñëw ñooy seen patron bon ko bàyyi leen font bi ay agitateur public ngeen vous accompagnez la réaction amu leen benn attitude révolutionnaire Amoulin ben attitude ça peut obliger par exemple l'exécutif Boumoun munti mais on l'a vu avec Abdou Diouf même Senghor amoon de résistance Abdou Diouf était <coughs> et <coughs> en espace de 15 jours vous avez fait deux quêtes benn bi ñu naan 37 euh, million dugg na si déjà pour euh, capitaine xaw ma naka yéen a ngi commencé pour la fille Ndiaye la mais vous êtes des un peuple de mendiants man ngi koy wax benn doom barki dem ma ne ko damay créer benn mouvement tuddee ko poignée de mille poignée de mille da ngay gis xale ba am cinq ans nekk taalibe ba màgg ba baayam taalibe la yéen ñëpp ay ay quand je dis taalibe mooy da ngeen di tàllal seen loxo.

yéen ngeen ne ko o oh, yàq na sa liggéey léegi amatoo revenu kaay kaay gars yi teg leen weccit jox ko Abdou Karim Xurum Xaat ñu tëj ko jox mu lekk biir bi daw bu bugg a dee jógu leen ni déedéet nga ne nañ cotiser yóbbu ko fan dans les pays capitalistes Allemagne pour mun ko faj amuñ sax hôpital bu ñu mën a faje mais gars yi bu ngeen doon nit dëgg nekk ay vrai révolutionnaire <coughs> def mane ne dem leen pointé bunti hôpital hôpitaux yi am Sénégal yëpp ngeen xool seen peuple mais ñi si dee si buntu hôpitaux yi bari na lu tax parce que amuñ lu ñu fayee pour ñu faj leen te gars yi duñu leen faj mais ñooñu lu tax ngeen di faj Abdou Karim te du ngeen leen faj boroom kër yi toog liggéeyuñ lu ngeen di cotiser di jox capitaine machin chose te du jox borom kër yi nga xam amuñ tous les jours xaalis boobu ngeen di 37 millions millions ici ay 20 millions ici wala bu ngeen ko dajale woon mënul xeex ngeen mais c'est que yéen a yi blanc blanc bonnet la yéen a da ngeen di parce que c'est de l'injustice la ñuy def dañu waroon a ketal tey trois quarts yi sénégalais yi yore kër yëpp parce que amuñ dara dañ leen di exploité suñu ale lañ si poche gars yi ñu siy xettali seen patron France gis ngeen histoire terre bi hmm? milliards yi ñuy wax ne mu ngi si poche gars yi avion bi bateau yi

mais nous allons endormir le fruit est truffé de verre. le fruit est truffé du verre. il n'y a que des verres dans le fruit il n'y aura pas un changement demain c'est pourri déjà soit les Français vont voir que nous, te am Macky tellement il a été tellement gauche les français yi bu lolu xamee loolu remplacé koy remplacer ak kenen, Ko de dina faire passer leur politique mais ce qui s'est passé dans le printemps arabe Un printemps arabe Un printemps arabe le daf révolution c'est ce qu'on appelle tempête dans un verre d'eau putain de merde ils ont fait sauter des fusibles Et Tunisie Égypte Égypte depuis le départ de Anwar El Sadat c'est un pays qui qui vrai débandade la dem leen nga Tunisie tey une mel révolution printemps arabe la même chose se passe en Afrique de l'Ouest sans que tu am <coughs> ñoo arabes yi duñ benn tax ñu tenter mais nous duñ tenter dañuy calmer le jeu ak des cagnottes loolu lañ koy faje ku Macky Sall dàq gars yi ne nañ cotiser faj ko doo jóg ne daa organiser wu débulu ne waa loolu lay won ne continuité mooy am parce que on gère pas ces mots M A U X par des mots paroles M O T S parce que vous avez un peuple l'Union a une soumission volontaire un peuple de taalibe dafa yag. préparation bi talibé un talibé mauro, du talibé Cheikh Ahmadou Bamba talibé Macky Sall nga Vous ngi dégg wala un talibé. Vous mel équipe de foot Talibé Tijani, Dormayo, bu mel ni taalibe eh, Cheikh Ahmadou Bamba yi dóor bi léegi nag taalibe yi ñu bari taalibe Ñaseen taalibe Laayeen léegi sax eh, Joolaa yi dañu am ay taalibe nga jógee foofu nag taalibe Ablaye Wade yi ah taalibe Karim Wade yi te musuñ ji seen sëriñ Karim de biñ ko dugalee si avion xamuñ tax dafa yóbbu ay xees ñu ne daal gars yi daal di ko ne si kaw bu ñu paree nag après on se retrouve placé ñu suñ pourcentage frais ci benn bank te moom mu gi am ay taalibe ba tey joxu leen wér du joxu leen dara de dara leen joxul gisu leen sax bàyyam waxu leen sax léemuwu leen sax yéen tabaski du jot sax wala weeri koor jot sax mu oo daal leen ne bisimilahi rahmaani rahim waqaad pap pap pap pap seen maam dara waaye yéen a ñëf laa jow guddantay doomaraam yi xorom sen ndey rek moo ma neex donc ça c'est c'est dans vos gènes c'est dans vos gènes noonu ngeen mel ak seen xeet ñu ngeen bokkal tubaab bee rawati bu tubaab bi taxawee nga trahir sa doomu ndey billaahi ngay lox Donc, nag diñu rey ak wax faire passer du n'importe quoi c'est quoi ces histoires là Cheikh Omar manifestation avec deux pelés trois tonnes. gars y a naa leen wax bu ngeen manifester ti da ngeen di wane suñ ñàkk fayda da di on ne représente rien da ngeen di wane ne peuple bi daf mais c'est révélateur ngeen te manif ñan ñoo fa nekkoon yéen ne on peut gagner une lutte avec des manifestations à deux balles autorisées yéen xanaa xamu l'histoire de l'humanité xam ngeen ki ñuy wax Mahatma Gandhi ku ko ëppoon nit si tali dara Martin Luther King gañewul dara bu Boudoulon, Malcolm X et les Black Panthers le peuple noir doit am ben ak i États-Unis Bo xeexul do am dara ngeen tok fi di ket lit lu xew lu gouvernement Macky Sall def d'injustice ngeen jog comme keroog son ben dom daf ma o parce que bon <laughs> xamo gars collectif lañ ñi leen di exploiter y en a qui font semblant de s'opposer y en a ñi nekk au pouvoir am na sama benn doom démb daf ma ne mais père ma ne ko mu ne ma l'entourage de Sonko jaaxal na ma ma ne ko lan mu ne ma Aïda Mbodj xaw la femme de Baol la yaayam ki ñuy wax ne yaayam la mais xaritu Macky benn bakkan la benn bakkan la qu'est-ce que cette dame là fou à côté de Ousmane Sonko t'as rien à foutre là tu fais partie du système il ne faut pas nous prendre pour des cons mais c'est clair tu es un imbécile je ne sais pas à quoi tu roules comme ça ne nous emmerde pas quand tu vas te retrouver les quatre fers en l'air tu vas comprendre très vite tu vas comprendre très très vite tu m'as dit, il a tout à fait raison cette cette hypocrisie là Il faut croiser le chemin bien il faut que les masques tombent quoi tu vois on ne va pas se lever janeer ne l'ila beugal se sama am 15 pour cent ñu nan le au nom de non vous ñu du arithmétique de sept huit pour cent car dinañ jël pouvoir bi kooku la je préfère prendre mes quinze pour cent je cherche pas à faire la révolution pour un peuple j'emmerde le peuple que le peuple se lève venir faire la révolution ak man parce que man j'en rien à foutre de vous damay lekk midi lekk naan utuma si xaalis je vous emmerde c'est pour vous bu ma feebaree dañ may faj soxlawuma ko donc lu tax ma leen di defal man révolution man ensemble dañ ko def Ousmane wax naa loolu ba tàyyi déggloo ko suppa kànja bi ngay togg boo moytuwul yaay nekk yeelu euh, xar mi na la leer on ne pas avec ça comment on peut prétendre se lever changer un système complètement réactionnaire depuis Mathusalem euh, faire une révolution progressiste panafricaniste en dénonçant par exemple le système et tu veux faire cette révolution avec n'importe porter système bob, sans autocritique sans être d'accord par exemple sur un programme mais c'est que c'est un pays de débiles c'est un pays de débiles Sénégalais, c'était débile. Vous êtes des malades. Vous êtes des malades, vous avez les chefs que vous méritez. Mais c'est tout, qu'on laisse comme ça. Moi, je m'en fous. On laisse comme ça. C'est clair. Nous ça des sagavante. Hein? attention. Vous voulez attaquer ben homme politique. S'il y a problème demain, chez vous, les cancres là, qu'il avait fait. Parce que tous les partisans de cette soi-disant opposition-là, pour demain mettre quelque chose qui est contraire à la vision patriotique de PASSEF, anti-impérialiste et panafricaniste, y a Ils ne y a contents. gars yi dara d'accord nous qui sont ils vous ont jamais dit que nouveau programme s'est basé sur les conclusions des assises nationales Khalifa Saleh ne l'a jamais dit d'accord Gakou ne l'a jamais dit, Mansour Jamel ne l'a jamais dit, ainsi de suite. Vous faites que vous êtes des jeunes cons, vous allez voir, ils vont vous pénétrer jusqu'au tronc. Vous quoi Attendez les législatives. Et encore, vous législatif amee ba le chronogramme bi ba léegi xamu leen fichier yi ñaata la ba léegi carte ñaata te amna ay parti bidon la yu commencé ñi ngi nan ñii ngi doxal di out parrainage ñi ngi nan on est compte non il faut foutre une bombe dans ce pays là et en finir da ngeen metti peuple bu metti ngeen peuple bu tërkiis te kooku nag dof la da ngeen métti yéen a ngi parce que seen kàng yi cerveau amu si bu ñu waxee nag ngeen jóg di saagawanteeg yooyu ñu posé leen un réel problème ah di leen laaj pour waxtaan waaw waaw sa maam waaye sa sa sa ndey fii waaye sa baay fii c'est avec ça que vous allez faire ce pays-là. Saga Ça, Hein? Vous avez dit ça? Hein? Vous pas Vous avez là Faiblesse vous avez là la. Vous avez la. ça. vous la. là ça. vous avez dit ça. Vous vous n'avez ça. Vous avez vous réfléchir entre vous. da ngeen di wante saaga naan kii dafa bañ kii kii dafa bañ kii non toogal ngeen wax ku lu ñëw leen rek ngeen tàccu amul discussion ngeen tàccu bu ngeen d'accord ak moom ngeen saaga ko mais non mais attendez rien de plus ridicule que toog di saaga hmm? parce que amu leen lu ngeen tontu amu leen argument affaire baa ngi nii devant te mënu leen si dara mais da en làggi te làggi bi ngeen làggi cerveau bi la kooku c'est flagrant mun nañ leen ko tegal tous les jours mais xoolal ma lii mais c'est tellement insensé suñu peuple la ñuy rang si bunti hôpitaux yi da ngay feebar ba dee booy amul trois cent mille quatre cent mille kan moo mun a génne loolu des soi-disant activistes toog na pat par bi ñoom kuñ si dàq liggéeyam injustement le lieu que nga jóg xeex nga ne jox ko mais tu accompagnes un gouvernement complètement réactionnaire kenn du jóg téye loxo bi léegi ñu génne ay naan famille waa ji nekk ndar la Mansour Faye xaw ma di wax ay affaire nagam naan nag yi mais ay golo ngeen quoi mais vous êtes des pauvres types di compter nag yi mu jëndee Normandie nag yi kireen la ñuy naan ngeen toog di seetaan lool ak di ko wax jëree waaye ñu ngi sàcc suñu xaalis te yow bu sa ndey feebaree amoo sax loo ko yow loo ko faje nga toog mais vous êtes des kuy ànd ak yéen gàcce lay dëkke déminable peuple dominable te ku jóg nag ni ñuy xëccoo micro yi dama doon xool seen kii bi keroog ni ñuy xëccoo micro yi waxu xam nga li ñuy wax waxu da ngeen war na waxu te boo xoolee seen kanam bu ñuy wax sax ni ñuy juire dañuy kontaan ci yàlla no non non non non non non non non non non le sous-développement est mental du dañ gaa yi leen mën gaa yi nañ ko setat bu ko gaa yi waxaan ay Sarkozy ak yooyu des trucs comme ça Senghor mais Senghor dafa xam nègre barke yàlla Senghor dafa xam nègre l'émotion est nègre la raison elle est émotif yen loolu rek leen émotion rek ngeen du ngeen leneen du ngeen leneen toog di jooy du ngeen jóg mukk ne na dakk nañ téye loxo waa ji wañaar ko yulli poosam ñemewu leen ko wax ju bari rek boo ci seen ni ñuy xëccoo micro yi bu ñu nekkee ensemble si écoutez ça suffit hein dit on va essayer de se mettre ensemble concrètement pour des actions concrètes pas à faire ou joy et des trucs comme ça Logiquement, mais vous faites ne des di wax waxu dof que tel ministre sàcc qui temps qui Gelokil, qui temps

doyen mbay ak Ousmane ñu ngi dee foofu dee ñu ciy wax maa ngi leen gis ngeen ñu ngi nii groupe bi bi ngeen ko defee ba tey ay taalibe rek fa nekk mën na leen mënu leen defal dara seen bopp mën leen tey bu fekkoon ne famille bu am bopp la gars yi ko ci génn àddina mun nañ jël dara loo xam ne ñoo koy cotiser jox ko njabootam wala ñun ñi mënoon nañu comme nous na nous ñu commencé di jox njobotam dépenses tous les vers nous ñu dimbale dara mais qu'est-ce gi tay buñ Si nous nit sax Dakar passal ko amu ko amuñ dara tok di wax rek man len te buñu talé rek ngeen tok bu intervenir concrètement lañ def dara béton, est-ce que groupe bi agir comme yéen ñëpp ko ko pas d'organisation kat ngeen topp leen di changement bi pas pour demain da ngay xam li nga bëgg xam li nga doon boo xamee li nga bëgg di nga xam li nga war a bañ ku la bugg a li nga war bañ ngay ko ko mais da da di le chien aboie la caravane passe toog leen gouvernement bi len s'en Saga len s'en il s'en fiche koy tous les jours Ils ne pat du s'en il s'en fout Et dara s'en si mënut s'en rek di s'en rek c'est un peuple de derkis. xam Ils da voilà Putain, non, mais attends quoi, c'est quoi cette merde C'est primitif là. primitif ce peuple de merde. Mais yalla, comment luma la def quoi, yalla. Yalla, mais qu'est-ce que je t'ai fait pour me mettre avec ce tas là Non mais c'est vrai, il faut demander à yalla lan lañ quoi. Mais est-ce que yalla tu oses yo la cabane sénégalais avec li sénégalais Mais il faut lui demander, ce gars-là. C'est un grand-père, Bila, Yalla. Il y a un Julie, soi-disant, je ne sais pas. Peut-être que vous avez fait un défense, mais man, je lui demande des comptes. Hein. Man, parce que moi, d'ailleurs, souffrance, toute ma vie, ngana avez may lak. Mais Yalla, tu, tu ne veux rien. Hein. Moi, je te le dis. Mon peuple, Safara. mais j'arrive pas à comprendre. ou le peuple bon alors il faut, les anéantir. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Qui mérite ça da ngay souffrir Je damay Dakar sama ay 5 cinq ans 6 ans à peine nous si qui ils ont ay di toute leur vie kan que ko dafa am dëj benn xale bu am 35 ans ma ne ko ñun peuple la boo xam ne amertume bi ñuy dundee gisuma benn peuple bu koy dundee dans le monde souffrance bi ñu nekk te danga koy nekk nekk xaleel tiis di su lay métti mais yeneen peuple yi dikki alsan toog di ki cousin am na mu koy doon ki toi, tu es yeneen amuñ yooyu souffrance ñun dañuy nekk xaleel di am amertume di am lu la ba ngay mais attends qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter ça non non non je te pose la question non mais c'est clair il y a quelque chose qui ne va pas chez nous il y a quelque chose qui ne va pas peuple boo xam ne souffrance nga ngay misère mais bo conscient rek souffrir ñudul souffrir nak moy des arrivistes. yu ay Macky Sall des arrivistes ban doomu homme, nègre si di contane wala wala di warul am warul am man mënuma Sénégal même bu ay millions de poche su ma xol di c'est pas possible xanaa du may génn sama buntu kër gis ay suma sët yoo xam ne yi sama millions yi dama ko war a mais déedéet gars dañuy tiitaru di pavane moo dajek ay sénégalais gaa dugg si ngandam oto takk ay gaafaas te ay kii di def nii dama lay xol sama yaram day daw quoi mané ki du nit ki du nit nga am benn de peuple opprimé bu mel ni ñun di def li légui nag sama dof yi ñëw fi ces arrivistes récupérés par la France là un petit boulot quelques robes quelques vestes quelques trucs ñu jox leen appartement HLM wala des trucs comme ça ñu am four micro-ondes ak télévision dañuy tal nak di woné wu di fecc putain loolu ngeen di def Facebook loolu ngeen di def surtout jigéen ji nag takk seen ay cheveux nag takk ay kii di won ku gën a guddule ah ku gën a guddule rek daal di ko def nii di won ña nekk Dakar nag ñu ne yow gis nga mèche yi mu takk i eh, gis kii bi waaw ji kañ ngeen di yeewu dof ngeen doom doomaraamam kañ ngeen di nekk nit kañ di nekk nit kañ ngeen di nekk nit déjà c'est une honte et c'est foncièrement aliéné naka la négresse mu doon toog jël teg karaw yu takk ko ci boppam yow boo dajeeg tubaab bu tudd Jacqueline nga xam ne daf ko am naturellement mu lay xool daf ne kii maa ko gën parce que lii diñ daggee si man lay jël di ko teg boppam sakatuma nag mu xeesal taxi li si gën a bon nga bàyyi Binte Njaay wala Yoro Fall seen koñ c'est ay cousin yoo xam ne ku góor ki benn jiin laam am ak ñaari simis ku jigéen ki ñaari rob la nga ñëw fii boo duggee tati wala fee truc comme ça robe ay deux euros trois alay ki loo dajale nag taal sa télévision France di leen ko woon et c'est un peuple boo xam ne il faut foutre une bombe là-dedans et puis qu'on en termine tout ce qu'on fout fii est néfaste du yëfu nit du yëfu nit moo tax si alxuraan ñu leen di wax ne on a les chefs que l'on mérite naka lu jullit mu ne mel noonu Hmm? gi daan julit ngeen peut-être loolu moo tax bu ma ne yàlla lu ma la def mu ne ma xoolal sa peuple c'est ce qu'il mérite oui oui dañ torox dañ torox ne cherchez pas loin oui dañ soxor parce que loolu soxor la noo mu ne taxaw ci mbedd génn xaalis di ko jox nit ni ñeneen di la gis te peut-être ki lay gis li nga yore dix pour cent bi rek la soxla pour dundal ko ngay sol say di teg di sol ay affaire di teg koo koy won ñu amul pour lan pour te vanter nga ne jullit nga nga ne nit nga Ien, vous avez ce que vous méritez vous allez crever tous la gueule ouverte Nak chez les tubaab là di raxas ay kaniwoog ay merde là. d'accord di ramasser ay nit bu ngeen demee dëkk ba foog ne ñu ngeen fa bàyyi woon jëriñuñ dara loolu ngeen di def ñooy di traiter comme des moins que rien ok mais c'est ça le problème fondamental c'est décevant c'est une honte ça suffit vos conneries de merde là. Ça suffit, arrêtez vos bêtises là. Dugan Dara. Arrêtez vos conneries là. nekk leen nit de làmb dafa lambe foo dof contenu vous n'avez rien vous ne pouvez pas argumenter d'accord le fait que j'ai avion ñëw avion rek ce village fàtte nga say doomu ndey fàtte nga say doomu baay ah tubaab bi jox la un petit job wala des trucs comme ça rek jox la kër yooyu rek nga commencé ah? di xeeb ñi nga bàyyi woon hmm? di xeeb ñi nga bàyyi woon hmm? c'est grave hmm? di ngay xool ba si yàgg nga ne mais attends on va vers le chaos ni ñu gars yi rawee ëpp na 5 siècles xeet yi lay wax dé waxuma la sax mais li ñu rawee moy waral ñu dominer len. Motax ñu naan le sous-développement est mental yéen ngi dégg lépp ci bopp la li ngeen di defante mo indi bonne. Mo indi jalousie Mo indi haine amu leen empathie entre yéen amu leen empathie yërmande profondément xamu ko loolu ngeen di fay loolu ngeen di fay voilà ok l'avenir nous dira le reste non dama toog di kii surtout bi ma xoolee hmm. saway ne rêve pas On ne on peut pas éviter le chaos Nous avons une intelligence pour défendre suñ bop dañuy nappaajawaat te mal te rapidement ça va venir parce que amul union entre nous wuñu bëggante bu la kenn nax li ngay gis ni yu bari yépp lu bari ngay gis tricherie lu bari li ngay gis yep, yëpp yëpp dara du tout est faux bon allez bonne journée tout le monde il est quelle heure là putain il est déjà 8 heures ma jóg sango dem si sama café Nous le matin là dans nos villages là on se retrouve au troquet là voilà comme dimanche les sax vous bu gars yi demain c'est lundi de Pâques là faut faire nous talk pour 11 heures voilà midi nous añi quoi allez salut tout le monde ciao allez ciao ciao ciao